asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi seetaan selil euh, bu communication bu junnatul liman nazamaho ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne nii lu mat fukki fan ak juróom a ngi ñu ànd ceeg yéen ci ay anam yu fasantikoo fii ñu nekk nag di kër sëriñ Touba gi mooy magasin bu mag bi nga xam ne nii fi ñuy dajale mboolem barkeel yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci mbokki jullit yi mbokki taalibe yi moo xam lu ñuy jëfandikoo lu ci mel ni ceeb ndox dawlin ak la ci ajo aju matelas siwo satala moto pompe yi ak mboolem li nga xam ne ni daal mbokki taalibe yi ñu ngi koy indi ngir dimbalee ko ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi fi leen koy dajale buñ noppee nag door ko yaatal ci yeneen magasin yi mën ko séddale incha allah dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñoo saytu bërëb bi ñu wax ne nag anam yi nga xam ne ni noonu la liggéey bi ajo ci luy dugg luy génn fan lay jaar ba lépp rek nekk lu leer nañu li nga xam ne ni moom la ñëpp di séntu. bii dafa bokk benn ci magasin yi nga xamante ni junnatun am na ko muy kuréel gi nga xamante ni seen mu Mountakha teg na ko ngir mu saytul ko wàllu mbënd mi magasin yi am na juróom benn magasin yu ñu am yoo xam ne benn bu ci ne dund nga fa ak bagas waaye magasin bii ci kër sëñ Tuubaa gi nag day magasin bi nga xam ne moo ci gën a mag te daa doon bi nga xamante ni li ci ëpp moom la ñuy ravitailler yeneen magasin yi nga xam ne waa sociale ñor commission sociale yor joxe bi ñuy joxe ndimbali ci aji ñi ko ñi ko yittewoo te yeyoo ko fii la ñuy defee seen bon masalan buñ soxlaa cent tonnes def seen bon cent tonnes ñu génne leen ko ci magasin ñoom yóbbu ko ngir mu gën a mën a jege nit ñi ba kuy jël si doo ñëw ba kër sëñ Tuubaa waaye fa la gën a jege rek ñoom sàkk nañ fa ay magasin yu wuute yoo xamante ne kenn ku ne gox ba nga ne dañ lay woo ni la gox mu magasin sàngam gën a jege demal ce magasin boobu ñu jox la sa ndimbal bari na bagage yu nekk ndax lépp lu jëm ci wàllu vaisselerie muy muy muy muy muy bool yi kaas yi palaat yi ak yu ni demee lépp fii la fii la fii la fii lañ ko fii lañ ko stocké loolu it da nga ciy gis ni bi sëriñ bi wootee murid wuy si nañ ko kenn ku ne la nga am andi nga ko lu ñuy jëfandikoo rek fi mu toll nii da ngeen a fekk sax yére yi génn waaye yére yi jigéen ñi indi nañ fi ci yére lim bu takk boo xamante ni ci ay valise ak i saako ci yére yoo xamante ne ay yére de valeur lay doon yoo xam ne ñoo koy génnee ci seeni kenn ku ne génne la nga gën a baax la ci sa taatu gaal indi ko ni dama koo wuysee ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi woote na ko ngir ñu jàppale ci ñi ga xamante ne ñoo ko yeyoo lépp loo xamante ni day dugg si doon bagage day jaar ci benn bunt loolu waa intendance commission bu ñuy wax commission finance intendance ñoo koy saytu lépp luy génn it day jaar ci benn bunt ndax mooy tax dara du mën a euh, euh, euh, dugg tey xamuñu ko dara du mën a génn te xamuñu fa mu jëm magasin bu soxla day ñëw def demande def expression de besoin la mu soxla waa social confirmé ko ñu yóbbu ko ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy joxe ndigal ñooy validé bu ñu validé joxe ndigal ni lii mën naa génn bu ñëwee nag ci finance intendant ñu doon leen a defal bon de livraison boo xamante ni bon boobu moom la ñu indi ci magasin buñ ko joxee ñi nga xamante ni ñoo ne ci magasin bi ñu livrer leen li nga xamante ni moom lañu demandé boo defee ñoom ñu jël ko loolu nag yóbbu ko ci seeni magasin ngir jox ko euh, euh, ñi ko yeeyoo ñi ko yeeyoo it bu ñuy ñëw di jël si am na lu ñu tuddee bon de d'enlèvement boo xamante ni dañ leen koy jox moom la ñuy indi nga xam ni kenn ku ci ne lañ la war a jox ci ci ndimbal diggante xaalis ak ceeb ak diwlin lépp dan ko ci bind boo ñëwee bu ñu xoolee list bi gis ci sa tur nga signé ci ci ci bon boobu ñu daal di lay jox li nga xamante ni moom mooy sa ndimbal biñ gisee ni magasin yi naa jël stock tàmbale naa am valeur moo fi nekk ndax boo doon estimer li fi nekk dana romb ay ay centaine de million ci valeur loolu it dañoo jël kilifa yi dañ koo joxe ndigal ñu jël ay agent de sécurité professionnelle yoo xamante ni contrat lay am ñu signé ko ak euh, euh, agence bi ñoom ñu fiy détaché euh, ay éléments yoo xamante ni et kon guddi ak bëccëg saa yoo ñëwee di nga fi fekk agent yoo xamante ni ñooy monter yore wàllu sécurité bi wàllu kaaraange gi ngoon gu jot dañuy dajale commission yëpp communication finance intendance sociale technique ba ci ñor wàllu contrôle bi sur le terrain ñëpp ñu daje kenn ku ne wax li nga liggéey ci bis bi ngir ak li nga xamante ne moom moom nga nisar ëllëg ñu bokkandoo tënk ko bak tey jii comme ku nekk commission bu ne da nga xam sa moroom lu mu yendoo ku nekk commission technique dana xam finance li fi dugg ci xaalis boo ko laajee dana la ko mën a wax li fi dugg ci nature ci ay dund wala ceeb wala lépp dana la ko mën a wax dana la mën a wax fu mu jógee donte du liggéeyam waaye gannaaw dañuy bokkandoo daje toog ci benn taabal def contrat ñu nit danañ xam communication li ñu yendoo xam beneen secteur li mu kon noonu lañ koy defee waaye ngoon gu jot daal compte rendu bu matale bu détaillé dana am ak situation stock boo xamante ni kilifa yi luñ ci bëgg a décide dinañ xam ni ceeb am nañ fi nangam te war nañoo séddale nangam war nañoo fàgguwaat nangam ñu def ko nga xam ne dinañ eh, eh, eh, intendance yi day doon loo xamante ne day doon aide à décision ci kilifa yi lu ëpp junni ak nangam ci nit waa social bind nañ leen ba bind seeni bon ceeb bind seeni bon xaalis bind seeni bon dawliñ li ñu leen war a jàppale ci ndimbal lépp ak ay yére ba lépp génn nañ ko ba liggéey boobu tàmbale na am na ñu tàmbalee jot seen ndimbal ñiy joxe it taalibe it ba tey jii ñu ngi ñëw am na ñuy indi xaalis am na ñuy indi nature kenn ku ne la gën la la gën ci yaa ngi koy seet di ko segg di ko indi ngir jàppale eh, eh, ngir du ma ne jàppale sëriñ bi sax waaye ngir jàppale sa bopp ci ndigal li nga xamante ni sëriñ bi woote na ko am na it kuréel yoo xamante ni ñi nga fañ nekk ña ngay dajale lim ba ñu am xëy na daa àggugut foo xamante ni eh, seen pëstéef àgg na fa waaye ña ngay dajale ngir bu ñu dajalee indi ko bés bu set da nga am kuréel gu ñëw indi ba démb ci mujj am na ñaari daayira yoo xamante ni ñëw na ci indi ba ci cellule à l'étranger ba ci dem ñu nekk à l'étranger muy bitim réew gis nañ Espagne ñu ngi ñëw waa France ñu ngi ñëw ak yëpp kon mel na ni bitim réew it des ñu gannaaw ci ci ci loolu kon loolu dana doon loo xam ne ku ko dégg te yow say wax gox ñëwaguñu ba ci Afrique Gabon Côte d'Ivoire ñun ñëpp ñu ngi ñëw kon mel na ne daal taalibe yi ñu ngi wuy si woote sëriñ bi ci ci ci ci ci ci ci niñ ci niñ ko mënee ak niñ ko mënee wut. jërëjëf sëriñ maam cer Thierno Mbaye doon wax nag ci kàddoog waa intendance finance ngeen dégg lu am solo li nga xam ne ni leeral na ko ci fi nga xam ne moo di magasin bu mag bi nekk biir kër Serigne Touba te fi nga xam ne fi la ñuy dajale mbooleem barkeelu yi nga xam ne ni mbokki taalibe yi mbokki jullit yi indi nañ ko ngir tabal ko ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ngeen dégg itam. procédures yu leer yi nga xam ne ni euh, wax na ko ci luy génn ak luy dugg wax na itam jëm ci euh, mbirum séddale mi tàmbali nañ ko ci yeneen gox yi nga xam ne ni yaatu na ci fi magasin ya nekk waaye li ci ëpp solo nag mu mujje ko muy soññ mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi moo xam ñu nekk ci réew mi wala bitim réew ni mu ko waxee léegi liggéey bi tàmbali na ñu ngi koy wéyal waaye taxut mu jeex benn yoon ndax li recensé ci ay euh, njaboot toll na ci fukki junni teg te liggéey bi tam te liggéey bi jeexagul kon nag ñu ngi soññaat mbokki taalibe yi ñu gën a tabbalaat seen loxo ci ndimbal li nga xam ne ni Serigne Mountakha woote na ko jëmale ko ci sinistre yi waaye moom jiitu ci di leen xamal na itam ñi nga xam ne jot nañoo bindu waa social ñu ci def liggéey bu am solo ku bindu déglul téye sa téléphone dinañ la woo ku bindoogul wala nga bindu woon itam wala nga bëgg ay leeral am na benn numéro vert boo xam ne ni mu ngi ci kër Sëñ gi muy 800 00 44 44 800 00 44 44 mën ngeen cee woote te doo leen fay dara boo leen ci woote lépp lu leen bëgg ci ay xibaar ay information jëm ci junnatun moo xam nga bëgg a bindu moo xam ñu bindal la wala nga bëgg a barkeelu am na ñoo xam ne nii suba ak ngoon ña nga toog di leen déglu dinañ leen gindi incha allah bu ko defee nag liggéey bi leen ko waxee léegi rek muy daal di wéy di ñaan daje ci ak ngërëmal suñu borom ci barkeb Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te wér wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin maridi